أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla subhanahu wa taala ñu ngi ñaanal sunu yenentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu ñu ngi leen di ziyaara ci weer wu màgg wi nu génn muy weeru koor wi tey nekk sunu njëlbeenu dars ba tey ci suratu ala imran aya 52 53 54 55 56 ñi jël 57 58 añu ko tuuti mu nekk juróom-ñaari aaya yu sunu borom subhanahu wa taala di ñu jàngal juróomi mbir ci juróom-ñaari aaya yooyu ñu war a jël tey bi ci njëkk mooy ba tey rek délégation boobu tudd nasaraanu najran yonent bi alayhi salaatu wasalaam dañul di leen yay borom bi subhanahu wa taala di ko jox waxyu mu leen di saxal di leen yàqal pas-pas bi ñu fas naan Isa yàlla la ba tey rek ay dañul di dajj loolu di weddi ba mu set délégation boobu ngëm-ngëm googu ñu gëm te mooy Isa yàlla la nekkul nit ñi rek la nekkul délégation bi kese la waaye ak bépp doomu aadama boo xam ne sa pas-pas mooy da ngaa gëm ne Isa doomu yàlla la aaye yi ñuy jël mu ngi lay weddi mu ne yàllaa ngi jox ay melokaanu Isa alayhi salaam ak ay xew-xewam yu nga xam ne xew na digganteem ak ay nitam ak taraanga gi ko yàlla subhanahu wa taala defal moom ci boppam moom Isa ak ñi àndoon ak moom ci àdduna ak àllaaxira kon lu ñuy njëkk a jël tey dars di ko dégg ci aaya yi mooy yàllaa ngi dajji pas-pas yi ñi gëm ne Isa yàlla la wala yaayam yàlla la wala moom doomu yàlla la yàlla di leen jox ay melokaanam moom Isa jaam la woon ku amoon daraja la ku yàlla defaloon ay kéemtaan la ku baax la woon yonent la woon yàllaa ko tànn ci jaam yi yónni ko yàlla teral na ko moom wali atbaa'ihi ak ñi ko toppoon maahu ànd ak moom wa man baadahu fi dunia wal axira kon loolu tey dafa bokk ci li ñuy jëlee ci li ñu war a jël tey dal si ñaareel ci li ñuy jëlee ci aaya yi mooy al islaam diinul anbiya wa saairul umam al bashariya mbokk jullit yi ñun ñëpp nañu ànd xam ne islaam mooy diine yonent yëpp la tàmbalee ci aadama ba ci yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam moom mu mujjee ñëw ñoom ñëpp islam mooy seen diine loolu dafa war a leer ci suñu bopp bépp jullit bu ngeen dégg mu naan yonent yi bokkuñu diine kooku pas-pasam wérul bépp jullit bu ngeen dégg mu naan diine yi dañoo bëri kooku pas-pasam wérul gis nga feebar boobu daf noo dal ba ci suñu tarixa yi ba ci tarixa yi feebar boobu daf ñu cee dal da ngay dégg léeg-léeg ñu ne kilifa kilifa déedéet kilifa diine yi bu ngeen koy dégg kilifa diine yi diine yi ñaata la mais ñoom duñ koy wax nasaraan dañ koy jàppe diine
saa yuñ ne kilifa diine yi daanu nañu lan lañ war a wax kilifa diine ji kilifa yi mën nañoo bëri mais diine ji du bari waaye nag kilifa yi moom mën nañoo bëri mais diine yi buñ ko bërilee rek def nañ musiba ndax yàlla moom bërilu ko lu mu wax benn la moom la aadama indi woon muhammad moo ko tëj inna diin inda allah al islaam mu ne diine jooju islam mooy diinu s- ñoo fi nekk di tuuti la ñuy nekk lislaam nekku fa day tuuti rek day tuuti rek Badr ñaata lañ woon 313 ñetti téeméer ak fukk ak ñett allahu akbar yonent bi lépp li ko li mu àndaloon 124000 lañ wala 124000 yonent dundam saxaaba yi mu amoon ñi ko gisul ak ñi ko gisul cent vingt quatre mille lañ ñi ko gis ak ñi ko gisul saxaaba yu mu amoon cent vingt quatre mille lañ kon mbir mi du bari waaw bu nu yaakaar dafa war a bari dañuy nax suñu bopp xam nga luy wax ji nag mooy mbooloo moom lu muy tuuti tuuti naa fexe ma bokk ci loolu rek mooy wax ci mooy ñun nanu fexe nu bokk ci ku ci bokk rek jaar nga ci ñàll gi yàlla moo nu wax loolu ci alxuraan yàlla nee na ñi dugg àjjana dañuy tuuti sullatun wa qalilun yonente bi mu koy fiir xam nga lu mu wax téeméer bu nekk ñaar fukk mooy dugg àjjana junni bu nekk téeméer mooy dugg àjjana téeméer bu nekk ñaar fukk waxuma sax ngeen xool àddina bi mais xool leen Sénégal rek loolu da ngay xam ne dëgg la yàlla ne sullatun min al awwalin daggit ci ñu njëkk ña waaye wa qalilun min al axira mu jëntalu jamono ñu néew ñooy dugg àjjana xool leen bu ñu dem fenn di wëri ñu xool rek sunu buntu kër yi xool sunu biir kër yi gis nu mel njaboot gi ni mel nga xool dëkk bi waaw kon tey ngeen xam ne yàlla moo wax dëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo nu ko leeralal ne téeméer bu nekk ñaar fukki yi ñooy dugg àjjana junni bu nekk téeméer bi mooy dugg àjjana junni bu nekk junni nit yu nekk téeméer mooy dugg àjjana ñeenteel mooy fadlu ahlu laa ilaha illallah ngëneelu ñooñu laa ilaha illallah ñi nga xam ne dañuy dund laa ilaha illallah laa ilaha illallah nekk seen pas-pas ñii ñoo nekk ci dëgg ñii ñooy ñii wax dëgg waaw képp ku gëm laa ilaha illallah képp ku koy dund képp ku koy dundal ñii ñoo nekk ci dëgg ñii ñoo wax dëgg loolu dinañ ko jàng ci aaya yi juróomeel mooy taqriiru qabdullahi taala li isa wa rafihi ilayhi hayyan dinañ jàng tey benn pas-pas boo xam ne lu bari ci ñun ñu ngi ciy xuus di ci wax te loolu ñuy wax amuñ ci xam-xam mooy deewu isaa ñu bari da ngay dégg ñu ne isaa dee na man yàlla mos na ma nattu sax ma déglu benn borom xam-xam ci benn kasetam mu ne romb naa bàmmeelu isaa ci asamaanu ñetteel xaw ma ñeenteel romb naa bàmmeelam man gis naa bàmmeelu Isa moom borom xam-xam boobu mu wax loolu waaw li ma ci jaaxal rek mooy Sénégal la dëkk nag xam lu mu uti woon kaw asamaan ba romb bàmmeelu Isa ak bi muy dem asamaan lu mu fa uti woon kan moo ko fa woo woon ak lu mu jëli woon ak kañ la ak bi muy dem lan moo ko yóbbu woon ak ñan la àndaloon ay question yu dul jeex loolu dinañ ko jàng tey mooy yàlla yëkkati bi mu yëkkati Isa yóbbu ko kaw asamaan muy dund yàlla yóbbu ko ci moom ak Isa dina wàcc aaxiru zaman li yaxkuma zamanan suma yamut après mu àtte après mu faatu loolu dinañ ko jàng tey beneen mu faatu faatu goo xam ne moom la yàlla bindoon ci moom ndax yàlla deful ci nit muy dee ñaari yoon di dund ñaari yoon benn yoon ngay dund benn yoon ngay dee kon di tey dinañu leeral bu baax ne Isa bi ko yàlla di jël def ko yóbbu deewul bu ko yàlla yóbbee yàlla dina ko wàcc mu ñëw ànd ak imaamul mahdi al muntazar ñu xeex ak dajjaal rey ko ñu gouverner ay at isa doog a dee delluwaat ci borom bi subhanahu wa taala nee na haza dalilun lii day wane dalil bu leer annahu rufia ila samai hayyan la mayitan ne yàlla da koo yëkkati jëme ko kaw asamaan muy dund waaye deewul mais tey buñ bëggee buñ ñu bëggoo gëmloo ne isa ngi sénégal ah mu ngi sénégal mahdi mu ngi sénégal vraiment sénégal dañoo mel ne ñoom ñoo moom l'islam bi wala ñoom ñoo moom yàlla ba lu lu fu ñu xiine rek jibril ñëw na fi démb ak jibril ñëw na fee kii demoon na asamaan ak waa ji demoon na kër yàlla démb ak lu nekk ngay dégg Isaa ngi fi ak Mahdi mooy diw sia të të të të ñun daa mel ne ñun ñoo moom lislaam bi fii bu fi yonent wàccoon musiba am billaahi su yàlla wàcce woon ab yonent Sénégal ñun amuñu benn yonent bu bu bëgg a jëli fii aakimoo ko mel ni diine bi ñun ñoo ko moom xool la xool leen lay yi ngeen di dégg Sénégal amul kër gooy fëgg bunt bi dugg lu dul wax nañ ca kilifa ga loo xam ne bu rombul yonent bi it jege na ko yéen a ngi toog di ma dégg nañ wax dëgg bi ma ne amul kër gooy dugg ci këru diine yi fii lu dul wax nañ lu jege yonent bi wala lu ko romb wala soo amul weddi leen ko loolu pour lan la fu ñu ko teg te dara du ci dëgg nag dara du ci dëgg ndax amul dalil amul dalil buñ ko mën a layyee ne yonent bee ko wax wala alxuraan moo ko wax mi ngi nii amul amul fen mais ay bànneexi bakkan rek ay jayante ku nekk di jay sa morom olof yi nee nañ ko ëmb sa sànqal ëmb sa fers juróom mooy juróom benneel mooy sidqu waadullahi taala dëgguk dige yàlla yàlla lim ñu dig dafa dëggu bi izzati ahlil islam ne waa lislaam danam jamono dina métti tey tar na trop ci jullit yi partout dans le monde ñi bëgg a dund diine waxuma waxuma jullit camlangal yi waxuma jullit fur funux yi ñi bëgg a dund mbir mi laa wax bëgg a dund diine bi mbir mi métti na ci ñoom tey trop parce que fu nekk ñu ngi leen di saax-saaxee tey rey leen moo gën a moo gën a yomb rey weñ waaw rey leen moo gën a yomb rey weñ waaye nag ñoom bu ñu découragé ndax yonent bi moo waxoon bada ad diinu gariban wa sa yaudu gariban kama badaa diine l'islam bi muy commencé ku jàng l'histoire bi xam ne dafa yonent bi nee na bu àdduna di waaj a jeex noonu la julli di di tumaranke mooy li am tey képp ku bëgg a sellal waxuma sax dëkk yu kawe yi mais ñun ñi fii rek koñ yi nga dëkk kër yi nga dëkk ah sa famille da ngay gis nit ñi da nga leen di xatal da nga leen di gêner da nga leen di baare beneen monde lañ lay dëkkal fu ñu toog di waxtaan yow la ñuy jëw bu ñuy programme duñ la ci bëgg a boole wala dañ naan ah na ngeen ko koy yéex a wax wala bu mu ko yëg waaw programme bu ñu def sax boo ci teewee da ngay gis ñu xat wala loolu rek fun jëm yenn saa yi sax nga gis nit ñi bàyyi la waaw kooku man dootuma ànd ak moom kooku dootuma nangam ak moom waaw waaw est-ce que nangam ak nangam di la dëkkal fo di wax yu kenn xamul te dara amu ci rek lu dul diine nga bëgg a dund danañ yàlla wërsëgal dëgg mu wërsëgal ñu topp ko danañ yàlla won neen mu wërsëgal ñu sori ko kon mbokk jullit yi aaya yooyu la ñuy jël tey insha allah ci kàttanu yàlla أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون واشهد بأننا مسلمون بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتمنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ومطهرك من الذين كفروا وجائل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين فيوفيهم أجورهم mu ngi nettali keroog doon ko jàppale ci liggéeyu yàlla bi doon ko jàppale ci liggéey bi Isa daa di jékki-jékki ñi ñi waaye ñu bëggee dara rek dañuy téléphoné rek toog ba mu dem minhum ci ñoom ñii wër ko al kufra bihi am na ñu ko ci weddi bi ak la islamiste la fondamentaliste la lan moo ci àtte américain yeeg tubaab yi rey rey rey leen ko rek rey rey leen ko rek buñ leen rey ñu noppalu gis nga rey loolu démb la tàmbali du tey Isa bi mu yëgee ne ñii ay yéeféer lañ trahir nañ ko yamatuñ ci loolu ñoo jóg nag léegi pour rey ko loolu la ñu yàlla di nettali ne fa lamma ba nga xamante ne axassa yëg na minhum ci ñoom al ku Isa Isa minhum ci ñoom al kufra kéeféer ne ñii léegi nekkatuñu ay jullit qaala wax na man ansaari ila allah kan moo may dimbali danañ jàng bu leer mu leer nañ yaxu yaxu aaya la falamma axassa isa minhum alkufra isa ba mu yëgee ne entourage am bii am na ci axassa minhum du ñëpp de ñëpp am na ci min
ñenn ñenn ñi trahir nañ ko jaay nañ seen diine àndatuñoo ak moom ci pas-pas bi def leen boycotté woo ñeneen ñi ne leen nañ leen ànd dem ci yàlla ci- ci jamono boobu la ñooñu naan
qaalu li amrillah toppal yaa topp yàlla déglu wa rasulihi topp yonentam bi womb ko déglu ko utiicu li nga wàcc wattaba'naa ku nañu ar rasula yonent bi fa yàlla mu bind ma leer na hatta alladina yasaluna ñi nga xam ne dañuy seede an laa ilaha illa allah amul benn buur bu ñu war a jaamu ko yàlla yaabudunahu ñu koy jaamu bima yajibu loolu ngay wax mooy seede nga la kenn la danga ko jaamu te kon yàlla fexe na pour sauver ci moom toppe yàlla waaye yàlla fexe na
bu yàlla daaneel fi mu nekkoon di jaamu